leen di waa jàmm gën laay waxal nag ñu waxtaan parce que dafa jot aussi dafa jot aussi gars yi ñu waxtaan Abdou Mbow ku baax la set mais mbaax rek nag taxul mu jóg lu nekk ci koñ bi mu yëkkati loxoom di ci def lu mu mën ak lu mu mënul Abdou Mbow duy politique te xam ngeen ni lii mu joxe xam ngeen ni fa mu ko na mu def ba am ko ka tax mu joxe ko ka ko jàppale ba mu joxe ko Macky Sall la loolu nag bu amee dañuy war a xool nag fan lañu jëm Abdou Mbow dafa yàgg génn ci école bi di sa ngéem wéet lool ku nekk na xool bisu élection day jot Abdou yaa baax gis nga ay Abdou yaa baax ay Abdou ñu nag sa yaay la woon Abdou ñoo la yar Abdou nit ku baax nga jërëjëf maire Mbow ma leen di wax ni leen gis nga Abdou yaa baax ak Abdou ñoo la jur réglé problème bi gis nga problème bi ay gërëmaate réglé tu ko problème bi xanaa xamoon problème bi ñaani kese sax réglé ko même imaam yi imaam yi ñom lañuy jital ci julli mais la waji waxon dafa liggéeyal sëriñ bi ba paré ñew ni sëriñ bi talal loxom bi sëriñ ni ko man day ma ñaanal la wala ma fay la mu ne ma lo ci def na gaaw parce que ci lay pass cela veut dire que Abdou fi ñu toll nii soxla na ñaanu mag ñi soxla neen ngërëmal jigéen ñi mais li mu soxla mooy ku ci nekk nii ab Abdou mbaw de indi na 35 millions gars yi loolu mu sam jaama gën de loolu 37 million léegi ku ko indi def ko te la mu wax parce que gis nga Macky Sall c'est un ingénieur Macky Sall ñu baal ma ci wax gi doful xam na bu baax te day toog di xool mais bu fekkente ni Abdou lu mu ko wax ni ko nañ dem koñ ba jàmm gën Maodo Mbaye naan ko si talam te 19 heures fu mu jotee jouru vote Abdou na ku ci nekk xalaat bu ñu voté ba ngoon nga ku nekk ñibbi sa kër dem toog mais ku ci nekk na xalaat Abdou Mbow moom la muy dund ku ci nekk na nga xalaat 19 heures bu jotee soxnaam si mu doon bàyyi activité bi mu doon bàyyi li mu doon ñëw di taxawaalu ci koñ bi fu nekk mu dugg fa 19 heures bu jotee jouru vote ñuy compté ñaata la ñuy wàññi di wàññi di wàññi di wàññi bu ñu wàññee ba génn ay noonam bu ñuy wax ak moom dañ naan ko moom de troisième vice président assemblée mënut sax gagné bureau de vote am te fekk na moom la war a gagné de bureau de vote yëpp nag ñu ngi koy def kon nag message bi amatul luñ ci yërëm cest à message bi amatul luñ ci yërëm beneen élément bi ci lay terminer gis ngeen il faut ñu def ndànk gis nga wax ji nekkatul ci non Idriss Seck soof nañu gisatuñ ko dañoo doyal ci voté ku ñu gisul parce que nag nit ñi mën nañoo wax ba Idriss Seck ñàkk ko Talla Sylla jël ko te ñun nag Talla Seck nañu jàmm moom man c'est mon grand frère wóor wóoruguma ni tey bu ñu demoon bay jàpp naa ni tey li ma gis ci mairie Thiès bu ñu demeen bay wotewaat maire mën naa ko sax voté moom mais député yi ñuy jëm député yi Benno Bokk Yaakaar la ñu soxla ci Macky Sall parce que keneen ko am benn fi toll nii sànq bi Abdou Mbow liko intéressé bu Idriss Seck perte ko waa Idriss Seck bu ko perte wa PUR gagner ko moom nu ko koy day am ñetti nakar dina am naqaru lim fi def dina am naqaru mo wax ba ngeen bàyyi kee dina am naqaru wax ngeen ba paré té mom gagner wu ko kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. di wax ne bind taxawaay la laaj asalaamaaleykum